koy jëf la doyut wa xifdikum seen wattu basarakum seen ub gis minal xaraama ci aji araam aw jagohu waral na ko xaleekum ci yéen rabbul araam borom bi léegi lam ne la soon léegi mu ne bëttam ci la sa bët na nga ko téye bu baax a baax lépp luñ aaye nga xool ko ci rek na nga ko ci moytoo xool kon wan zajiro na ngeen jàjju xan nazarin xan nazarin walis xool li muslimin jëm ci ab julit bi nazarin ci ab xoolin tuub bii ba mu dana ko lor sa mbokkum julit na nga ko moytoo xool xool boo xam ne da koy lor ndax li làmmiñ mën a gëddaatee bët mën a soccee xool xoolu gëddee li làmmiñ mën a doy dale bët mën a soccee xool xoolu doy dal li làmmiñ mën a xuppaatee bët mën na ko yooyu yëpp na nga ko moytoo def nag sa mbokkum julit lii ne mujj nit li ab yéefar waaw bu yow yéefar moom fa innahu naka moom xaleeku moo war na leen fiimaa ci la nga xam ne cheikh yoonaleef na ko hijraanuhu ak tongam tong mooy jàmb nasihatam ngir laa biire li war tabiha ngir mu jaajëw dafa toll woon ci wax naa bu fekkee ne kooku dañu am yéefar wala mooy koo xam ne jullit la waaye dafa ñàkk sàmm am jullitam moom kon moom leen doo yem rek ci xool ko bët bu ñaaw waaye da nga war a jàmb ngir laa biire ko ndax bu dee yéefar mu tuub mu xat ba tuub ñëw ci jullit ni dee koy mooy yàlla te di ko fësal mu bàyyi mu doon loolu mu nekk xam ne ngir yàlla tax googu googu jàmb nag ma mën naa yàgg jàmb gi nga xam ne ko weesoo ñetti fan moom mooy jàmb goo xam ne sa bakkan rek tax mooy itam dara nga ko ci ñetti fan ndax dañu xam nit moom yàlla ko def muy ko mata bi faaw mu mer waaye su meree nag bu jàmb kenn ci loo xam ne bakkanam dong la bu ko weesoo ñetti fan ko bu weesoo ñetti fan rek na ko tey di araam ne daal ko di jeexal daal jeexal jàmb go daal ko nuyu waxante moom te génn ci lan jàppoon wal tax jaroo na ngeen wattandiku suxbata kulli faasixin àndaale bépp saay saay it ngir daaka loolu xëyru xëyru laa ixin bu aji yàlla bi muridi ci kuy wut yàlla bi muridi ci ak tawli bi mooy ajamanu yàlla faasix mën naa nekk buru adduna burugalu yàlla mën naa nekk borom doole itam burugalu yàlla kooku nee na ma ngeen moytoo ànd ak moom ngir teraangal adduna la ndax ni mu ko waxee woon ca jowar ku bokk ñoom seen teraanga ci adduna bokk ñoom seen toroxte foofu ci àlaxira tax mu ne loolu ak taalibe du ko def fal tax fal yooyu na ngeen wattu al axda ak cër ya battanante mooy biir wala lisaan ak làmmiñ wala lisaanu farjun ak pëy mooy sawukaay wa rijlaani ak ñaari tànk wa aynaani ak ñaari bët yeddaani ak ñaari loxo wa baadaha nekk na ci seen gannaaw udnaani ñaari nopp moom raxaa ku sàmm laxaa ñeel leen xalil maxaras yi walis ay mooy kulli xaa boole seen yéen tafe xaama jëriñu nee na nit ku ne am na juróom-ñaari cër yoo xam ne wante war na koo sàmm bu baax di ci jëfandikoo te wata caa laal tere biir benn la ci làmmiñ muy ñaar sowkaay muy ñett ñaari tànk nga jàppe ko benn ñaari bët nga jàppe ko benn ñaari loxo nga jàppe ko benn ñaari nopp nga jàppe ko benn yooyu yëpp mu ngi ko jàpp juróom ñaar moom ñoo bokk luñ ci ay ak luñ ci digle juróom-ñaari cër yi waxoon nañ ci tësëw du subaan kenn ku ne ñu beral ko ab buntam la nga ca war a moytu waaye mu ne nag boo sàmmee juróom-ñaari cër yëpp ba moyee ci yàlla kon xamal ne ku li wax dëgg-dëgg njub yàlla defal na la ko te danga jëriñu fii ak fane fooku lu képp min xaaj juróom-ñaari yooyu jumlatam mbir mi mboole seen xadd xaabala jàkkaarloonte naag baaban bunt mu ne ñiiraani ci sawara ya mu ne ñiiraani ci sawara ya suñu ci la nga xam ne pas sabata saana ndax nee na benn cër bu ci nekk dafay bunt sawara ba mu jàkkaarloo wala ñëkkoon ku nekk xaafis xaadi ajootu seen yëkku fa kon def na ko fegal bu xoolan ak dugg yoomal xanaa ci bisub coono ba ci naari jil xahri ci sawara borom noteel ga ak jël yi ba koy ajuma ga li ma ne du xoolan du tax kii jàng defaraat téere yi waaye jàng rek fee ko mbéy mooy kon du xool rek lay jàng waaye am na koo xam ne dafa nga ba sàmm juróom-ñaari cër yëpp mooy ci yàlla kon mucc nga ci sawara doo dugg benn bunt ci bunt sawara yooyu nga xam ne moom la cër bu nekk jàkkaarloo woon ci bunti sawara ya kon mucc nga ci bunt yëpp mucc sawara yëpp waman xasaa ku nooy nag almoola buur bi bi xuduran ci ab cër abaran faw te baabu xaa kon buntam ba baabu xasaa bi xii mooy buntum bugalam xadan ci ëllëg nee na képp koo xam ne mooy na yàlla boroomam te tuubu ko yàlla jékki bu jékki baal ko ko kon cër bi woonu nooyee buntu ba mu jàkkaarloo moom borom cër bi foofu lay dugg sawara bay dugg sawara wakulukum képp ci yéen us alu def na ko laaj xam ra ayn walis ak sàmm raxaa ko sàmm na ko kama ataa naka dikkee bii ci loolu xadiisu man xadiisu ko nga xam ne waxaawatu na nee na kenn ku nekk nga xam ne ab sàmm la bu fekkee boppam dong lay lif nga xam ne kon boppam rek lay lif na sàmm boppam bu baax góor gi daal nga laaj boppam bu fekkee am na njaboot na sàmm njaboot ga xam ne boo liggéey daañu ko laaj bopp mu laaj ko njaboot ga bu dee kuñ fal nga xam ne kon boo liggéey daañu ko laaj moom yilifoon ca pal ga yooyu rek nga xam ne kenn ku ne rek nga xam ne ab sàmm la ci lu muy yilif te boo liggéey daañu ko laaj boo xam ndax defoon na ci war garamam nit amal bu toonu daal biir ya fax fazuha na ngeen leen wattu man xaraamin ci aji araam wa shubhat ak am lant tanaawulan ci yóotu bu leen fisaamin ci lu ak dog bu leen fisaamin ci lu ak dog maanaam nee na biir kat moom itam na ngeen leen na ngeen sàmm biir bu baax a baax ba lu ngeen ci dugal mu wóor leen ne lu lew la lépp lu araam ba am lant rek na ngeen ko moytoo lekk na ngeen ko moytoo ba ci seen biir ndax ku nekk ni mu koy waxee ku lekk lu araam faaw nga jëf lu araam ku lekk lu lënt faaw nga jëf lu lënt kon nag boo lekkee lew nag moom faaw nga jëf lu sell kon na ngeen fexe ba lekk lu sell wattaxidu te ngeen farlu fii talabil xalaali ci sàkku aji lew ndax fa huwa moom al muqarribu mooy aji jegeñal lii di jëlaali mooy borom moom nga waaw nee na ngeen farlu ci am lu lew ndax lekk lu lew ci la ñuy amee ak jegeñ yàlla wattaxidu te ngeen farlu in niltumoohu ndeem am ngeen ko fiq ci saarin ci gàttal yi ci bëri xaaf lañ koy def du ko defal xaaloon ko waaye ñu bëri daal dama ne fiq ci saarin ci gàttal yi xal ci baxin wuris regg fa innahu naka regg rax zugati ra zugati raarin mooy bopp ak waru mooy njëlpeenu waru nee na bu ngeen amee lu lew ba ciy jëfandikoo ngeen jëfandikoo ba yëg ne jëfandik ngeen rek doon waaye doon àgg ci regg waaw ndax dañuy wax ne nit ki bu ko see regg moom ci ren yëpp dañu daal xiif ci bu nekk di ko jëme ko ci lu aay te bu ko see xiif nag moom cër yëpp dañuy regg mooy cër yëpp dañu daal di téye seen bopp kenn du yëngutoon jëm ci dara mu tax mu ne reggaay boobu mooy njël benn waru mooy ci ak waru di tàmbalee ibi ngir shibahu shaxs si reggaayu jëmm ji minal xalaali ci ajalaw mag da kulli charri mooy tàmbalikaay yëpp ay fil ahwaali ci mbir ya waaw ndax nee na nit ki moom bu xasee regg dañuy jëloon lu araam ba lu lënt waaye lu lew lan moom boor koy lew na bu ci xasee regg sax loolu ay yu bare bari ci loolu lay sababoo ndax fii nekk na ci regg ñun aafaati ci ay gàkk maa loo xam ne laayu saa def ko mën a lim xanaa rek daf yi dana dikk min xaa ci ñoom surtout juróom benn xonaa fii li tux saa ngir bu dee fi takk ko waaw nee na xeeti gàkk yi nga xam ne maanaam xeeti yàqu-yàqu yi reggaay yi mën a jural nit dafa bari bari waaye boo xam ne mënus koo wax waaye wax juróom benn yoo xam ne danga ko mën a jàpp taqsiyatul qulubi wal xol ya maanaam xëy na gindile regg moom deful waaye buy saxoo rek saa yu nekk du xiif mukk te mujj xolam day wow dañ ko waaree ci loolu yàlla lu tax xolam tiit bu séenee lu baax xolam du xëcc jëm ci te di xaw a ñeme lu aay xam nga xol bi day wow loolu regaay yu sax dana ko def ifsaadul xuquul ak yàq xel ya maanaam dana tax xel mu naqari nit mën naa neexum xel waaye bu saxoo rek rek saa yu nekk day mujj xel mu day naqari ibtaaluha ak yàqam xibran ak mokkal yu sax xew googu dana wéral ak mokkoo la toxal ya dana tax a fët maanaam saxoo rek dana tax la nga mokkaloon nga fàtte ko moo xam alquran la moo xam hadis la moo xam yenn wax yu baax la woon saxoo rek dana tax nga fët la nga mokkaloon mu siqalul ardaaw ak diisub cëree xam xibaadat ni wëlis jaamu yàlla waxan xuloomin ak wëlis ay xam-xam xat xaat lay làq nañu ifaadat njëriñ ifaadata njëriñ waaw nee na saxoo rek dana tax nga tayeel doo sawar ci jaamu yàlla doo sawar ci benn xam-xam booy amal njëriñ waaw bu fekkee da ngay xiif xiif bu yem rek da nga sawar ci yooyu yëpp bu saw yàlla waaye nag boo reg reg saw nekk moom saw da ngay tayeel ci jaamu yàlla di tayeel ci lu aju ci wàllu xam-xam waaye sunu tamit dimbale ak seytaane seytaane ba tey nee na rek day dimbale seytaane ci yow nga xam nga ko waxee woon boo ko seetee bi cër yi moom dañuy xiif bànneex bi gën a yëngutu moo tax mu dellu ci wu ñu xaw yi te muy dëgëral ak lëbbaati bànneex ya adan ba tey waaw ba tey reg day dëgëral sa bànneex te lu nii boo xiifee moom day mën di rey sa bànneex xiif yàgg day mujj sax rey sa bànneex waaye yooyu gayit moom day gën a yokk sa bànneex mu jëm kaw sax juróo na ngeen wattandiku ak afaati gàkk yooyu le wala wax taqsit xulóob yooyu ñett a ngi ci wal gi wéral xol muy benn ak yàq gi mu yàq xel xel mu naqari muy ñaar ak yàq gi mu yàq mokkal tax a fëtt muy ñett ak taayaloo gi muy taayaloo cër yi ci jaamu yàlla xam-xam ko defee muy ñeent dimbali gi muy dimbali seytaane muy juróom ak yëpp gi muy yëpp gën a dëgëral bànneex gën a may bànneex kattan ko defee muy juróom benn wa talabul xalaali sàkku lu lew faradun farata la yentani jóg dana askanu li kulli muslimin jëm ci bépp jullit bi xëyri waxaamin ci lu dul defle wala ci lu dul njuumte ana nee na sàkku mu leew farata la ci bépp jullit ndax jullit mënta ñàkk lekk mënta ñàkk sol mënta ñàkk fatu te it ci lu leew rek la ko sañ a defee suñ ko defee ci lu araam mbaa lu lënt kon nag fexe ba am lu leew moom mënta ñàkk farata la ci jullit bu ne laa yan faaw du jëriñ alxilmu xam-xam wala alxibaadatu du caageenu jaamu yàlla bi ak di ànd ak lekk lil xaraami ñel aji araam indi saadati fa sangiya nee na ñu baax ñi maase nañ ci ne nit bu dee lekk lu araam du mën a xam lu am njëriñ du mën a jëf lu am njëriñ maanaam daal xam-xam mbaa jaamu yàlla bala caa dara am njëriñ day fekk kooku di jëfandikoo lu leew waaye bu dee jëfandikoo lu araam moom xam-xamam du ko jëriñ ak jaamu yàllaam du ko jëriñ wax te biiroo na ngeen di wattandiku mu ne lësi ca la nga xam ne ay xantu moo wóolu ngeen di kaw ni ci ak nekkam alxaraama di aj araam aw zanantumu wala ngeen jortu ko nee na lépp loo xam ne wóor na leen ne lu araam la mbaa jortu ngeen ko ne lu araam la rek na ngeen ko sori maanaam lépp lu ngeen di jëfandikoo rek na fekk ngeen xam ne lu lew la mbaa seen jort dëgër lool ci ne lu lew la waaye loo xam ne wóor na ne araam na mbaa jort nga ne araam na moom bu ko jege wal takk tafoo na ngeen doyloo bi maa ci la nga xam ne yuqiimu dana taxawal assuur ba ndigg la dina taxaami ci aw ñam li tutixoo ngeen ngeen mën a topp ak rabba buur bi mu ne su ngeen dee jëfandikoo ñoom itam da ngeen di jëfandikoo loo xam ne mën naa sàmm rek seen wér-gu-yaram te bañ a ëppal waaw ndax ëppal gi moom loolu mu ci waxoon ci xeeti sikk yi nga xam ne moom la indi waaw fi sa bunt kër yemoon waxoon na sikk yi nga xam ne mooy am ci boo takkoo rek ñoom saa yu nekk kon nag boo jëfandikoo yow mën a sàmm sa wér-gu-yaram nga dëgër ba mën a jaamu yàlla rek doy naa ndax am na taxaama naka ñam meliifun aji xoromu la maanaam aji neex lay doon rek inda aakilin fa aji lekk laakin waaye yasiiru dana mujj baadu ci gannaaw ba waxaa itam di ay xayta xabiixan yu aji bon ndax nee na lekk yi moom faj lool rek la waaye boo ko seetloo la cay neex lu gàtt lay doon mooy bi muy jaar ci sa gémmiñ rek ngir bu gàtt boobu rek lay neex waaye bu ko xasee jàll moom neexit bi jeex na ba noppi nag day soppiku xayta yoo xam ne boo sañoon sax doo ko amee te boo ko amee daal di bëgg a tàggoog moom moo tax kon daal fajoor rek boo ci defee baax na wan tabixoo na ngeen yeewu fii àndal ahda ci naka cëriya tashur dinañu seere axadan alëg xaleeku moo ci yéen fii maa ci la nga xam ne war a da arut na mu ne ngeen di fàttaliku ne kenn ku nekk ay cëram bu ëllëgee moo koy seere cër bu nekk la mu daan def lépp da koy daal di wax waaw nga xam ne yowma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yaamaluuna waaw bis boobee kenn ku nekk say cëri moo doon sa seere nga xam ne cër bu nekk moo wax la mu doon def loolu mu ngeen di ko fàttaliku di ko bàyyi xel bu baax a baax kii jàng nag mu seetlu ne fi an laax daa rek lay doon boo jàngo yi wante bi xoo fi an laax daa xadaa booy jàng benn benn nag bu doon ci wasal moom nga wax fi an laax daa waaye nag bu dee ci wayu moom PCB tax na ne fii ànd laa baa ah wal taala moo te ngeen xam bil xashrati ci fukk ya al usuli di ay cosaan fa innaha naka ñoom masaalikul usuli ñoo di yooni àgg yéen am na fukk yoo xam ne mënuñoo ñàkk ci yoonu yàlla ndax mooy tax àgg fukk yooyu nag moom la bëgg a wax mu ne ngeen ko sàmm bu baax baax mooy tàmbale fal taqtaxu na ngeen dog ak taswifa néeg néegal néeg néegal mooy yi nga xam te lu baax xassiru na ngeen gàttal al amala mébét ma li ngir lay sa yum ci ne du jàpp ni xamaloon jëf doona doy ne ci lu dul yi la yaar ci lu dul yi la yaar waaw nee na yi nga xam te lu baax ëpp naa def maanaam loo xas xam ne lu baax la rek dana di gaaw def ko ndax xamoo waaye na ma ko yéexe bu waxtu sàngam xamoo da nga dund sax ba waxtu woom déet xamoo boo ci àggee da nga ko fàtteem déet xamoo boo ci àggee da nga ko tal am déet moo tax kon lu baax lu ne moom waxtu nga ko war a defee dana li gaaw def ko ja ngeen ngeen moytu guddal mébét guddi mébét mooy jàpp ne danga gudd fan yoo amagul mu ngi ñëw loolu bu ko jaam bi defee day tax muy yee xam tamit ci lu baax day ñeme itam mooy ndax day jàpp ne rek tuub xaj na fi danga dund gi des na rek day jàpp ne kon li muy def ci ak mooy danga ko mën a tuub bu ëllëgee balaa génn àdduna waaye mu ne day gàttal seen mébét waaw jàpp ne dund gi moom lu gàtt la te xamoo kañ lay jeex xamoo tey la xamoo suba la waaye loolu mooy tax ngay farlu ci lu baax di sori safaan ba moo tax mu ne yaari moom bu amul rek jëf bu mën a am mooy faaw nga néewal seeni nit te mooy tudd yi xam te lu baax di ko jëme wenn waxtu maa dugg waxtu sàngam wala tamit su te ngeen sàkku idaamatal muraqabati saxal fugloon teeg yàlla ndax faxee moom saxal muraqaba jaalibatun aji ñordee la ila xusnil xitaami jëm ci rafetu mucc dina fu ngeen toll na ngeen di bàyyi xel yàlla fugloon teeg yàlla mooy bàyyi xel ci ne moom bu fekkee gisoo ko itam moo ngi lay gis te boole na laak yaari malaaka yoo xam ne saa yu nekk ñu nga ànd yow di bind li ngay def loolu loolu nga di ko bàyyi xel saa yu nekk loolu mooy saxal muraqaba nee na loolu nag moom day tax am mujj rafet ndax li ceeb li fekk sottiwul loolu rek da nga di moytu lu bari bari ca subaan ba da nga di góorgóorlu ci lu baax loolu moo tax day war a mujj rafet. wa man yada ku bàyyi kun la footballin gépp caaxaan lan yaxus gum làqut jam xan ak dogu wala jam xan boole lépp jaam bi xanaa rabbil bariyati ci borom mi fi lu fus mu texe. waaw nee na boo fexee ba moytu gépp caaxaan gu lay teye jëmale sa lépp ci yàlla maanaam jëmale sa lépp ci yàlla moom nga war a jéem saa yu nekk boo fexee nag bu waaye gépp caaxaan guy dox sa diggante ak loolu rek xam ne kon yaa ngi ci yoonu texe boo ko bàyyiwul rek moom yaa ngi ci yoonu texe waxarriru na ngeen di sellal nii tan yéene min qabli fi leen ci njëkk jëf wal taarifu te na ngeen xam rachadahu jubam nga wa xëyahu ak réeram muy ak jubadeem moom jëf-jëf ah nee na bala ngeen jëf jenn jëf na ngeen xam ba xam lu baax la am safaan ba la ñëkk mooy bala ngaa song jëf-jëf ko ngay teeylu ba xam loo war a jëf la am loo war a jëf la maanaam lu baax la am safaan ba la gannaaw boo xamoon lu baax la itam nga fexe ba def ko ngir yàlla y kese seelal yéene ja kon bala ngaa jëf na nga xam ne la ngay jëf moomu te fexe boo koy jëf di yàlla doomu tax aji tamit boo na ngeen teet alxawaatira xalaat ya arradiyata yi aji bon dañ koy firi yi aji bon nag waaye yi aji ñàkk solo rek lañ ci jubloo donte fa àggul ci bon waaye xalaat bu amul njëriñ la rek loolu lañ jublu nga moytu ko wala jamo te ngeen taqoog alxawaatira xalaat ya al maradiyata yi deen gërëm ah nee na ngeen di farlu na ngeen di farlu ci di xalaat ci seenum xel lu baax ndax xalaat lu baax dalay ñor di jëme ci lu baax waaye ngeen di moytu xalaat ci seen xol safaan bu mooy lu bon mbaa loo xam ne su bonut it amul njëriñ ndax bu dee lu bon xalaat bu yàgg day yóbbu ci jëfe ko bu dee lu ñàkk solo it amul njëriñ it noonu xalaat bi yàgg dalay jëmale ci jëf ko maanaam xalaat bi moo lay ñor di jëme ci jëf ga kon ngay fexe ba taxoo xalaat lu baax lu yàlla gërëm su ko defee ci moom rek ngay jëm ay boo dee xalaat safaan ba it da ngay daal jëm ci loolu la ak siiru xultatin baril ak jaxasoo bi leen tifaaxin ci lu dul jëriñu daaxin aji woote la ila dunuubi jëm ci bàkkaar ya wal xijaabi ak kiiraay la maanaam na ngeen moytu jaxasoo bari boo xam ne amul njëriñ maanaam bari jaxasoo nit ñi jaxasoo wax mënoon naa ñàkk te amul njëriñ doole ci waaw kooku waxoon nañ ne ci loolu àdduna gën a gaaw a jékkoo maanaam lu ci ëpp jaxasoo moom te jëlewoo ci bàkkaar loolu néew néew la rawante na jamono ji ñu toll maanaam bu fekkee jaxasoo am njëriñ daal bépp jaxasoo bu am njëriñ daal sooy boo sori ko ndax dalay andil bàkkaar daal def baaraas daal def ak ñàkk sa digganteeg sa borom li ci ëpp ci xeeti jaxasoo yi loolu lay andi waxaalifoo te ngeen jiwoog nu foo sakum seeni bakkan siimaa ci la nga xam ne daxatu woote nañ ñoom bakkan ya loxo jëm ca maxat tisaamiha ànd ak seen ak tuumaal siimaa ci la nga xam ne it tax du woote nañ ko ci dëggu mbaa ci farlu maanaam sa bakkan lu mu lay woo jëme ci bul nangu bañal xam ne li ci ëpp lu mu lay woo jëme ci rek sa lor la sa bakkan tam boo gisee muy wane ne moom farlu na ci lu baax mbaa dëggu na ci it say boo tuumaal ko mooy say bu gëmoo la ndax li ci ëpp bakkan moom fexe ba nax fexe ba naxal day yomb ci moom waaw dafa toll di ko tuumaal ngay rafet njort ci yàlla te mën a rafet njort ci sa bopp wala tekonte bul nekk dasti ajaalin di boroom ko yàkkamti fil fatxi ci ubbi ga fa innahu naka moom almaxiibu kenn mbërëg la mbërëg mooy reegal lu rijaali ñeel góor ña waaw mu ne itam ba awee ci yoonu yàlla bul yàkkamti waaw bul ne sonn naa ba tàyyi mbaa dox naa ba tàyyi te yegguma jëruma àgg daal di bëgg wëññarib ko loolu pexem saytaane la ndax nee na yàkkamti yàkkamti moom bu ko jaam bi defee rek day mel ni jigéen ju amee mbërëg xam nga jigéen bu xasee am baax day dox digganteem ak jëkkëram maanaam bu kaal jaam bi itam bu di awoon yàlla ba noppi di yàkkamti day dox awoon day dox digganteem ak boroomam ñu mbërëg di doxee diggante soxna saak boroom kër ba rek xam du mën a jotee moom rek yàkkamti it noonu lay def jaam bi ba ba àgg ca boroom bi doon yóotu wala tusbit na ngay saxal alxasda jublu ga ilaa mawlaaka jëm ci sa borom mul taji an mbir mu ngay aji wéeru bi shukri maa ci sant li nga xam ne awlaaka nangal ma la ko nee na foo toll na nga yeesal sa dëgmal yàlla tey sant lim la xéewale tey tuub li ngay gàttanlu maanaam saxoo tuub ci li nekk ci sa digganteeg moom tey sant lam lay xéewale mu dem te nga sax xala zikra ci tudd yàlla maxal ixlaas yi ànd ak sellal ga fa innahu naka moom ak tarixu mooy yoon wa dil xalaas jëm ci mucc ah nee na foo toll del saxal tudd yàlla ci sa làmmiñ ak ci sa xol te yàlla dong tax te bu fekkee booy tudd mën nga jaa bañ a rax baade ci bokkut loolaa ci gën loolu nee na mooy yoon yi gën a gaaw ci mucc te mooy yoon yi gën a gaaw ci àggale jaam bi ci boroomam mooy saxal ko fàttiku saa yu nekk ci xolam ak làmmiñam te boole cag sellal wala takun te bul nekk mun tabida sharixati di aji wet sharixa fa nabzuha ak wëccam durixatun aw yoon la wala jotlikukaay la ila raba jëm ci alkande loolu itam li sharixa rëdd foo toll ne sàmmante moom bu wax ne xol bu sell bi rek lañ soxla te man am naa ko mbaa maa ngi koy jéem defe ne am nga sañ sañu xët li sharixa rëdd waaw saa yoo xëttee li sharixa rëdd rek xamal ne yaa ngi jóge sa bopp ci alkande waaw ndax sharixa mooy yoon wi waaw ko defee nag mu war a boole sàmm gi sarix ak sellal ci xol bi waaye saa yoo xam wàcc na li sarix rëdd rek rawante na bu defee ne sañ na koo xëtt te du wàññi dara waaw loolu moom mooy musiba mi gën a gaaw ci yàqal ko wax jër wattandikul raxaaka yal na la sàmm allahu yàlla an tusaaki na ci ngay dëkkanteeg xayral jalili kudul aji màgg ji zaahiran ci lu feeñ wa baatinan ak ci lu nëbbu mais na nga moytu sam xel dal wala sab xol dal ci lu dul yàlla maanaam fexeel ba sab xol ak sam xel nay dal ci yàlla yi kese ci biir ak bëti waaye bu sab bu sab xol mbaa sam xel yankee leneen lu bokkutu yàlla rek ak loolu ci la musiba yi gaaw dëkkale fexeel ba doo yank doo dëkkaale mooy doo yank ci sa xol lu bokkutu yàlla ci biir ak ci bëti waxaasib te na ngay xisaab ak naf sa bakkan ba sabaaxan ci suba wa masaan ak ci ngoon takun kon nga nekk muqaddasan di ko ñu sellal xadan ci ëllëg mën a azaa ci lor yéen foo toll del xisaab sa bopp suba ngoon maanaam bis bu nekk boo xëyee na nga seet ba xam loo fanaane biig ndax sàmm nga digali xëtloo ci dara ak ndax farlu nga ci li yàlla bëgg bu ngoonee itam nga seet ba xam li ngay yendoo ndax li ngay yendoo li ci yàlla santaane def nga ko nam ko santaane mbaa xëtt nga ci dara la yàlla aaya ndax laal nga ci dara am laaloo ci dara su ko defee bu la wóoree ne matala nga sart ya nga sant bu baax te tëcee ne loolu yokk boo gisee ne jiwe nga ca dara lu mu néew néew nga rëcc ko te tuub ko te fas yéene bañ a defati lu ko mënatee uddum te nga sax xala tawbati ci tuub fii kulli zamanin ci bépp jamono mun jumlatil xisiyaani ci mboolem mooy ga siroon ci lu nëbbu ba xalam ak ci lu feeñ dana foo toll na nga saxoo tuub lépp loo xam ne xam nga ko ci mooy ak loo xamul sax rek dee ko jéggalu yàlla saa yu nekk ndax loolu yàlla jéggal la ndax jaam moom daanaka ëppante la waaye ñàkk jàdd yoon néew néew na ci ab jaam bëggul jàdd benn yoon wala bëriwut fa haasihi usul yi lay cosaan nag xuddat li wéet na leen li usul ñeel àgg ci yàlla te wa badat feeñ nañu aydan ba tey wa badat feeñ nañu aydan ba tey usulan mbir mu ñu ay cosaan li tasawuf ñeel tasawuf nee na yi mu lay bëgg a wax nag mooy yi nga xam ne faaw nga sàmmante ñoom boo bëggee àgg ci sa ngërëmal sa borom te nee mooy su ma wax ni sax mooy cosaani tasawuf maanaam mooy ponki tasawuf mooy yi ñu bëgg a wàññee awaluha aji jëkk seen talaasumul kitaabi mooy taqoo alquran wa sunnatil muxtaari ak sunnas ka ñu tànn di sawaa di koy boroom ak jub waaw ba ci njëkk mooy nee na saxoo alquran ak sunna waaw fexe ba xam ne li alquran digle ci jaam ak ñoom ci bëgg ak li sunna sàkku ak li sunna waaj yooyu yaar nga taxaw ci tem taqoo yooyu yaar ne loolu benn la ca ci ponk yooyu wa tarkul ahwaay ak bàyyi bànneex yi waaye nag boo jàngoo yooyu moom wutir ku la waaye rek lay doon ndax ñu ko mën a peese moo tax loolu dafa la am ci téere bi wutir ku la waaye rek lay doon waaye nag ci dëgg-dëgg moom booy jàng benn benn wala bu fekkoon doon way bokk kon day nekk wutir kul ahwaay ak bàyyi bànneex ya wutir kul bidaay ak bàyyi bidaaya waaw bokk na ci ponki tasawuf lépp luy xeetu bànneex nga di ko jéem a moytu maanaam sa bànneex ndax bànneexu bakkan boo ko toppee rek mu dal lay alak dal lay réeral lépp loo xam ne xeetu bi daala lépp luñ sos bu jiwoon rek alxuraan ak sunna nga di ko sori kazaaka naka noonu tab jilu siux yi màggal sëriñ sa alxusha yi ña di way ragal yàlla anaam sëriñ si nga xam ne ñu ngi ci yoonu yàlla te dëggu ca ngir leen màggal ngir yàlla ndax dañu woon seen màggal nitu yàlla màggal yàlla la man ko waxee woon ca naxju xabaayil xaaj waaw màggal borom xam-xam yi jëfee seen xam-xam loolu màggal yàlla la ru'yatu axdaarin ak gis ay ngant li kulli xalqin ñëw ñëpp mbindeef maanaam bokk na ci yoonu tasawuf mbindeef lu mu la mën di lor ak lu mu la mën di def waaye ci sa bakkan dong la yem xëttu ormay yàlla da nga koy may ngànt mais da ngay jàpp ne yàlla mi ko sàkk moo dogal loolu rek mu jaar ci moom ñëw ci yow rek doomu aadama ci bopp moomatut yàllaa ko sàkk ne woon lii faaw mu def ko mu jëm si ci yow kon buñ nee nga nangu ngànt mi dee si mooy lu ci jëm ci si yow ci loo xam ne ci sa bakkan dong la lay lor waaw loolu moom moom ngay may ngànt kooka jàpp ne moom li yàlla dogal la mu jaar ci moom jëm si ci yow rek waaw nga bañ a fayantoog moom bañ ko caa mere dañ ko koo jàppal xam ne lu yàlla dogal la te xëy na sax yaa def bàkkaar ba tax yàlla jaarale kooku lor jooju ma si ci yow waaye nag du tee bu la defalee lu baax moom nga sant ko ca mel ne moo ko def gannaaw ba nga sant yàlla nga ko sant ngir loolu lu baax la moo defal moom mbindeef mi bu xëttee orma yàlla itam na nga taxaw tem ci la la ci war boo ko mënee dindi dindi ko ci doole soo ca mënee wax wax ca soo ca mënta wax nga naqaru ko saxul daal tàggoog moom idaamatul wirdi ak saxal wirdi li wacc xaq ngir jëm yàlla maanaam bokk na ci yoonu waa tasawuf saxoo wird wird ab dog lay firi ab dog boo xam ne ci wàllu jaamu yàlla la goo xam ne warul sax bu dee ci yoon waaye yow nga warlu ko di ko taqoo moo xam waxtu suba la moo xam waxtu ngoon la moo xam waxtu guddi la maa bëccëg ndax bu ne wird mooy xeetu jaamu yàlla woo xam ne dañ koo sàkkal waxtu woo xam ne ca la ñu koy def ñu nii lañ koy defee mu am tàmbalikaay am yemukaay bu dee ci yoon yi tasawuf fi nag yoon wu ci ne am na wird woo xam ne am nay sartam ak nañ koy jëfandikoo niki bu dee yoonu Sëriñ Tuuba am na wird boppam woo xam ne moo tudd almaquudu minallahi bi waasitati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu nag mooy wirdu boppam ngir sëñ bi moom wirdu yëpp la ko yàlla joxan jaarale ko ci waral wirdu nga sëriñ sañ ko jëkkan a jox mu di ko joxewaat ba tax na daana joxe yëpp waaye yii nag moom mooy boppam yi nga xam ne moom la digal mboolem taalibe yi ñu sax ci di ko jëfandikoo ngir yàlla moom nag ku ne sañ ngaa jékki-jékki daal di koy jëfandikoo suñu mbàkkee bu sax am na ko ko laajan mu ne ko mën ngaa jékki-jékki jël wirdu yi tàmbali koy jëfandikoo daal di bokk ci yoon wi doonte sax demoo tàllal say loxo mbaa dara wa tarku taawilin ak bàyyi taawil wa ruxsatin ak bàyyi gépp yolomal gépp yolomal ak sharia maxa xasimatin ànd ak dogu xalal na fii ca la nga xam ne xat sharia yoonaleef na ko ba tey nee na ku wut yàlla moom bu gisee ci sharia loo xam ne lee ak jàpp dal la waaye lee ko gën kon day jàpp ca loolee gën te gën a metti daal di bàyyi jàpp ndal googee léeg-léeg nga gis nag jàpp ndal goo xam ne nga sàmm ko moo gën nga def la gën a diis maanaam mel ne ngay ngay tukki tukki bu motali sart yi wàññi julli yi matoon ñeenti raaka nga def ko ñaar moo gën noppali waaye foofu mu nekk itam moo gën matal ba waaw lu mel noonu moom doo ci sàmm jàpp ndal ba maanaam boo jàpp ne rek ñeent gën a métti naa def ñeent déedéet bu dee daal loo xam ne yoon def na ca ruxsa ak jàpp ndal def na itam geneen anam goo xam ne moo gën nga gën nag moo gën a diis te moo ëpp tuyaaba waaw su boobaa da ngay jàpp la gën a diis te gën a ëpp tuyaaba bàyyi la gën a woyof waaye bu dee loo xam ne nag la gën a woyof naka yoon yombalee noonu la gën a itam nag waaw su boobaa da ngay jàpp ruxsatu boobee wali xijaabi nafsi ñeel na kiiraayal bakkan sittatu usulin juróom benn cosaan taqataxuhaa yoo xam ne na leen dog himmatu man yittee koo xam ne yoo bëx yi gën a sàkku ay wusool àgg ci yàlla nee na am na juróom benn yoo xam ne ab ñàkk lay doon yoo xam ne sa bakkan moo koy defum ñàkk sa digganteeg sa borom am na juróom benn yoo xam ne faaw nga jéem a tàggu ñoom faaw nga am yitte ju dëgër ba tàggu ñoom ndax boo ko defut muy ñàkk boo xam ne sa bakkan moo koy def sa digganteeg sa borom iktaaru aklin bari lekk maxa iktaaru sharabin ànd ak barit naan iktaaru xultatin ak bari ak jaxasoo bi laa raw mi sawaabin ci lu dul sàkku jub wa kasratul kalaami ak bari wax kasaratul manaami ak bari nelaw moo xam ne ak sàggan xam jikkari xaalixil anaami walis tudd aji bind ma dee fi juróom benn yaa ngi waaye bu nekk am na ñett dafa wax ne lekk bari lekk faaw nga bàyyi ko bari naan faaw nga bàyyi ko maanaam lekk na nga lekk rek ba yëg ne lekk nga te bañ a àgg ci regg waxoon nañu regg musiba yi ca nekk naan itam na ngay naan ba sàmm sa wéru yaram waaye doo ko bëri bëri boobu jaxasoo gu amul njëriñ tam na nga ko moytu gépp jaxasoo gu bëri bu amul njëriñ rek xamal ne am ñoo koy doon sa digganteeg sa borom ak wax ji bëri ju amul tuyaaba wax ji bëri ju amul tuyaaba doo ko moytu ak nelaw yu bëri nelaw mënta ñàkk ndax boo ko defut daal di wéré di ndax yàllaa ko dund nit waaye boo nelawoo ba mën a sàmm sa wér rek doy na bu xasee bëri ay nelaw